asalaamaaleykum mbokk yi tey la gaawu ñaar fukki fan ci jumaadal uula muy weeru rakkaati gàmmu di juróomeelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre ci atum ñaari junni ak ñaar ñeent ñaar fukki fan bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci gaawu bi rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca watu li ñu ciy taati rek waccandiku mooy ku ca sangu wala ku ca fóot ñaanuk bis bi yow yàlla mi aj dudd ji tey aji des ji maa ngi sàkku xettal ci sa yërmande yaa xayu yaa qayuumu bi rahmatika astaxiisu yaa xayu yaa qayuumu bi rahmatika astaxiisu xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na taxaw naa ci buntu àjjana gis na daal la ëpp ca ña fay dugg mooy way ñàkk ñi xadiis bi Buxaari nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qumtu ala baabil janna fa ida aamatu man daxalaha almasaakin rawaahu albuxaari waxtu julli suba waxtoom dana tàbbi cinq heures cinquante-quatre juróomi waxtu yu tegal juróom fukki simili ak ñeent tisbaar treize heures dix-neuf benn waxtu wu tegal fukki simili ak juróom ñeent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 sept heures neuf juróom-ñaari waxtu yu tegal juróom-ñeenti simili di so dix-huit heures trois juróom benn waxtu yu tegal fanweeri simili ak ñett yal na nu yàlla nangul te nangul leen